Ndeye Fama Ndao présidente du réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants. Vous Alors, comme son nom l'indique, pencum jigéen ñi, nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'une rencontre avec les élus locaux et les parlementaires, avec les femmes de la société civile pour discuter des questions relatives aux droits des femmes et, et des filles. Mais également euh, créer des actions de communication et de sensibilisation pour inciter davantage les, les femmes à aller, à avoir accès du moins euh, aux instances de prise de décision. Je m'appelle Yaï Fatou je suis la chargée de programme et chargée de plaidoyer du réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants. Qu'est-ce que vous euh, euh, Aujourd'hui, nous sommes réunis euh, ici dans le cadre d'une activité dénommée Penchum Djigeni. Euh, comme son nom l'indique, cette activité, son objectif, c'est de créer un cadre d'échange entre les jeunes, femmes et filles, des organisations de la société civile, des organisations de femmes en particulier, et les, les élus euh, locaux, les parlementaires, pour discuter sur les questions de droits des femmes et des filles. Euh, particulièrement discuter aussi des thématiques de plaidoyer euh, du réseau des jeunes euh, sur lequel il travaille il travaille avec le projet Voix et leadership des femmes en l'occurrence le relèvement de l'âge du mariage des filles à 16 ans tey dañoo nekk fii ci pencum jigéen ñi ñun ak jigéen ñi nekk si si si si si si comme yi ñu fal si collectivité territoriale yi ak si assemblée pour waxtaan si lu soxal droit wu jigéen ñi ak xale xale yu jigéen ñi eh, pour ñu sottante xalaat xool nu ñuy def ba ba mun a ñaax jigéen ñi ñu ñu ñeme te dem fu ñuy di mën a joxe seen kàddu fu ñuy jëlee décision aussi ñoom ñu mën faa mën a toog wax li ñu kii parce que jigéen moo am na moo yoo xam ne jigéen moo xam li muy li muy daj li muy souffrir donc kenn mënu ko koo waxal jàpp nañ ne moom moo war a toog wax défendre ses propres intérêts ñu tudd Yaay Fatoumata Leye nekk chargée de plaidoyer wu réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants tey euh, ñi ngi regroupé wu fii euh, ci benn activité bu ñuy wax pencum jigéen ñi comme ni niñ ko déggee pencum jigéen ñi activité la boo xamante ni day permettre jeunes yi ak euh, femmes yi nga xam ne ñoo nekk société civile bi ak organisation de femmes yi en particulier ñu am benn cadre boo xam ni jotaay day xam di permettre ñu exprimer wu si li nga xamante ni moom la ñuy wax si problème yi jigéen ñi di jànkonteel ñu waxtaan ci ak élus locaux yi ci ak parlementaires yi nga xamante ni ñoom euh, yaakaar nañ ne war nañu mën a saafaraal sunu euh, problème yi nga xamante ni moom la jigéen ñi di jànkonteel ñu ngi waxtaan si lépp lu laal droit des femmes et des filles en particulier seen intégration si instance prise de décision yi euh, wax tamit si li nga xamante ni moom la ñuy tuddee disposition discriminatoire yi nga xam ne moom la euh, jigéen ñi di dund euh, mun naa ci joxe exemple relèvement de l'âge du mariage bi nga xamante ne article 111 du code de la famille dafa wax que ni jigéen day marié à 16 ans alors que texte yi nga xam ne Sénégal ratifié na ko waxul loolu dafay euh, euh, suggérer à ce que euh, jigéen âge mariage am minimal ñu def ko 18 ans donc question yooyu yëpp lépp li nga xamante ni day laal droit des femmes et des filles ak ak yelleefu jigéen dinañ ci waxtaan tey si cadre kii bi mën a fexe trouver ay solution proposer tamit ay actions yoo xamante ni def la au auprès des élus locaux yi nga xam ne ñoo fi teew ak parlementaires yi pour ñu mën a eggale sunu baat si kaw. mais tamit dina am benn mémorandum bu ngeen génne aussi. boobu mooy euh, euh, bu ñu waxtaanee ba pare kenn ku nekk joxe kàddoom dinañu xool yan action maanaam yan jéego la ñu mën a teg yoo xamante ni élus locaux yi fi présent ak euh, parlementaires yi ñoom ñoo ñu si mën a accompagner bu baax ba nga xamante ni baatu jigéen yi dinañ leen mën a dégg ci kaw si lépp loo xamante ni day jëm ci métital jigéen ak respecté ak ak yelleefu jigéen si Sénégal.